alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yiñ mun te peek di ko ñaan mu julli suñu yeneen te ba sallallahu alayhi wa sallam di ko di leen dénk ngeen ragal yàlla sax ci loolu ba dee fekk leen ci ngeen ragal yàlla di wax wax ju dëggu kon de yàlla baal leen seeni bakkaar yéwénal seen mbir yépp ki texe àdduna ak allaxira mooy kanangoo topp yàlla ak yonent yàlla gannaaw loolu mbokk julit tey jii day ñi ngi nii tiim ñu ay guddik suba gi ñu jëm ca lay tàbbi fukki guddi yu mujj ci weeru koor di fukk guddi yoo xamee ne nii bokk na sunna yàlla ci biiri jaamam mooy xool lu ko neex ci ay mbindaafanam mu tànn na doon loolu ay nit la ay malaaka la na doon loolu ay place la na doon loolu ay jamono la bokk na loo xam ne nii tànn na ko ci jamono mooy weer yi fukki weer ak ñaar la mu tànn ci weeru koor muy weer ba gën ci biir weeru koor mu tànn ci fukki fan yu mujj ya nga xam ne mooy la gën ci biir guddi yooyee mu tànn ca la nga xamee ne nii mooy laylatul qadr nga xam ne mooy ceer ba gën donte ne ne guddi gépp it dañ naan la ci gën moom mooy ceer ba ay suñu ceer bu mujj ba comme ni mu nar a ñëwee ci kanam ay kon suñu borom subhanahu wa taala mooy bindi lu ko neex mooy tànn lu ko neex li tax ñu tudde ko laylatul qadr borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari waaye doonte ne ne am na ci lii mooy suñu boroom nee na ci lay dogal li nga xam ne moom la jaam yi di nar a dunde ci at mi ay suñu boroom dogaloon na lépp waaye ci lay koy xamal ay malaakaam loolu ma ngi koy leeral ci suratu duxaan mu ne guddi la goo xam ne gu barkeel la suñu boroom nee na ci lay teqalee bépp mbir su ko defee ci lay woo malaaka yi ne leen ñi yor liste dee muy malakul mawut mu ne ko ñii ñoo war a dee ci at mi ñii ñoo war a suy ci at mi mooy yeneen malaaka ya ñii ñoo war a am wërsëg ñii ñoo war a am ay guerre ñii ñoo war a am kaza wa kaza su ko defee malaaka yi xam lii nar a xam xew ci at bi am naa kumpa gu bay yàlla rek moo ko xam loolu mooy la tax jëkk ñu tudde ko laylatul qadr tudde nañ koy laylatul qadr ngiree ne sunu borom yàlla da koo màggal ndax ci la wàcce téeréem bu màgg boobu di alquran suñu borom tagg tagg ko ne laylatul qadr bi nga xam ne ci la ñu wàcc alquran comme ñu xam ne dëgg-dëgg la ko tax a màgg ba kawe mooy alquran boobu ñu ca wàcce loolu it mbokk dalay jàngal kon laylatul qadr li muy màgg màgg alquran moo ko gën a màgg mbokk mi ngi noonu di lu màgg loo xam ne duñ ko wax lu dul ñu fàttali wax bu ñaaw boo xam ne mi ngi commencé at yii di raam walaay ku yeewoon sunu maam yi mosuñu ko dégg mooy ay nit ñu naan guddi gàmm moo gën a màgg guddi laylatul qadr ndax laylatul qadr li tax mu màgg ci la ñu wàcc alquran ca bu dul woon ak muhammad alayhi salaam alquran du wàcc kon guddi ga yonent bi juddoo moo gën a màgg guddi laylatul qadr mbokk loolu su ma bañul wax lu garaaw dama naan la waxi kéeféer la ab julit di wax loolu abadan mbokk laylatul qadr mooy gën guddi gi gën a màgg ci guddi yi la ñuy laaj kay mooy ndax guddi ga yonent bi alayhi salaam di ko màggal baax na ak baaxut foofee la borom xam-xam yi di wax ca la gën a wér mooy benn lay amu ci kon nañu xam loolu mu bokk ci it la nga xam ne tax na mu màgg ñu tëdde ko leelatul qadr mooy julit bu ko màggal màgg julit bu ko màggal màgg suñu borom yàlla subhanahu wa taala def na ko benn guddi goo xam ne boo ko màggalee mel na nga ku dund juróom ñetti fukki at ak ñeent yoo saxoon ci jaamu yàlla xoolal loolu mbokk julit boo ci amee fukki guddi mel na nga ko dund juróom ñetti téeméer ak ñeen fukki at yoo xam ne yaa ngi sax ci jaamu yàlla boo ci amoon ñaar fukki guddi nag naka lay demee loolee kon di ngëneel boo xam ne jurit bu ko màggal màgg moo tax ñu tudde ko laylatul qadr wax nañ ca yeneen ay lu mel ne malaaka yi dañuy fees ci kaw suuf ba xatal ko ca qadr day firi ci arab lu qat mooy zanna an lan naqdira alayhi wa man qudira alayhi risqa kon ñu ne suuf day fees ci malaaka ba ba ba ba ba ba xat almuhim mbokk yii yépp wér na ci laylatul qadr kañ la laylatul qadr ci fukki guddi yooyee kii di obadatu ibnu samit radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaam day bis génn na ci jàkka ji fekk ñaari ci waa ansar di xuloo mu taxaw arrangé leen ba pare ne day yàlla day xamaloon na ma laylatul qadr may génn pour wax leen ko ñii di xuloo ba ma far naa far naa ko fàtte waaye fàtte gi ma ko yàlla fàtteloo loolu mën na am moo gën ci yéen ndax suñu borom moo ne yonent bi alayhi salaam sa nuquri uka fala tansa illa ma sha allah danaa la jàngal doo fàtte xanaa lu dul lu ma neex mu ne nag fàtte googu ma ko yàlla fàttaloo mën na am moo gën ci yéen waaye xool leen ko ci juróom-ñeenti fan yu mujj yi wala juróom-ñaari fan yu mujj yi wala juróomi fan yu mujj yi almuhim mbokk borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf yu bëree bëri donte na la ci gën a not mooy guddi ñaar fan ga ak juróom-ñaar waaye boo dellu woon ci ibnu xajar wax na la ci ñeen fukki tegtal yoo xam ne ku nekk indi nga sa tegtal ci loolu la gën a màgg la ñuy def ci laylatul fukki guddi yooyee mbokk julit lañ ca gën a màgg mooy li ñuy tuddee itikaaf itikaaf mooy lan mooy nga bàyyi sa programme àdduna yépp nga doon liggéey ba la la nga doon taxawu ca famille ba la la nga doon taxawu fu mu mën a doon dem ca jàkka bi féete ak sa borom doo ittewoo lu dul jaamu yàlla loolee di la fàttali di la waajal ne sa dund gu gàtt gi kat léeg mu jeex yaa ngi nar a dem sa bàmmeel amul kenn ku la fay wéttali ku dul sa borom nga jéem a tàmm wéttali koog moom fii ci àdduna jiita loolu loolee mbokk dañuy gis ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon depuis mu dem madina yàlla farataal ci moom weeru koor weeru koor bu nekk fukki fan yu mujj ya day génn këram féete ca jàkka ja ba baa weeru koor bi nga xam ne moom lu mujjee woor ñaar fukki fan la yonent bi alayhi salaam def ca jàkka ja ay soxnaam daanañ ca ànd ak moom ba mu fi jógee ñoom ñépp ñu saxal loolu di itikaaf ca jàkka ja di ba faatu kenn par kenn ba jeex radiallahu anhunna mbokk loolu lañu gis ne moom la yonent bi salallahu alayhi wa sallam doon def jurit bu nekk war a xool ndax mën ngaa def fukki fan fa lillahi alhamdu loolu mooy la gën ndax mënoo def fukki fan loo man même bu doon ñetti fan la ñaari fan la même bu doon benn fan kese sax ngay ñëw féete ca jàkka ja ngal la way xamal ne loolu lépp dañ koy tuddee itikaaf am na borom xam-xam yu ko yóbbu ba ci benn guddi wala benn bëccëg mi ngi noonu ngëneelu yàlla lu yaatu la mbokk nañu gis ne bokk na ci taxawaayu yonent bi alayhi salaam heure bu fukki fan yi ñëwee nga xam ne mooy fukki fan yi ñu doon seet laylatul qadr da daan takk la nga xam ne mooy ab sërëm wax nañ leen ko muy génn soxna yi dem ca jàkka ja waaye da daan sant ñu yee waa kër gi yépp mag ndaw góor jigéen ku mën a taxaw naafila ñu taxaw ca guddi ya yépp di ko naafila bal da ngay gis ne la yonent la Aïcha wax ne ahya layla dafay dundal guddi ga lenn ci borom xam-xam yi dañu ne bu fukki fan yi guddi weeru koor masaan tabbi yonent bi alayhi salaam fukki guddi yépp du ci nelaw diggante gee ba ba fajar di xar loolee am na borom xam-xam yu ko wax su ko defee mbokk guddi la gu yàlla tagg ne alquran day ca laa ko wàcce muy benn wàcce ba mu ko wàccee ca asamaanu benneel ci benn guddi laylatul qadr di guddi gu màgg googee sunu borom yàlla ne lu la koy xamal nee na moo gën la nga xam ne mooy junni weer ay yow mbokk julit bépp jëf boo ca def sarax la julli la na doon loolu njàngum alquran la na doon lum mën a doon nga defal ko ci guddi laylatul qadr moo gën nga tànnal junniy guddi lu dul loolee di ko ca def comme ni ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala waxee borom bi nee na malaaka yi dañ ca wàcc ànd ak jibril mii kilifay malaaka yi ñu fees dell kaw suuf di nuyu julit ñi di ànd ak ñoom ci jàkka yi ak kër yi di nangu seeni ñaan di ñaan yàlla jéggal leen ñaan yàlla yërëm leen moo tax suñu borom yàlla nee na jàmm mucc rek moo cay am ba baa fajar di xar loolee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bépp julit boo xam ne taxaw na ko di ko naafile day yàlla dana ko baal mboole mi la nga xam ne moom mooy ay bakkaaram ay yow mbokk julit xamal ne gannaaw taxaw di naafila googee amul lenn lu gën a màgg ci fukki fukki guddi yi ñuy dund mooy di toroxlu di ñaan suñu boroom jël suñu xoj yi suñu xol yi aj ko ci yàlla amul benn julit bu war a réere ne kenn dong mooy jëriñ muy yàlla kenn dong mooy lor muy yàlla kenn dong mooy joxe muy yàlla kenn dong mooy xañe mooy yàlla mooy wërsëg ku ko neex lu àndul ak nat mboole mi magasin lu mu mën a doon ci loxoom la nekk bu bëggoon a jëriñ benn jaam mboolem mbindaa fa ni buñ taxawoon ne loolu du am du tey loolu am bu bëggoon a lor benn jaam mboolem mbindaa fa ni buñ taxawoon ba koo fekk du tey lor ba daanu ci kawam loolee mbokk julit bu xam boroomam du ci sikk sàkk suñ borom yàlla mu ne su ma la tegee benn lor kenn mënu koo teggi ku dul man su ma namee yiw ñëw ci yow kenn mënu la koo xañ ku dul man te mooy jéggalaate mooy yërëmaate nam koy waxee ci suratu yunus suñu borom yàlla waxaan ñu ba tey ne xool leen su dee damaa namm ci yéen loo xam ne lor la wala njëriñ la ana kan mooy mën a dem di fekk loolee comme nam koy waxee suratul fath ay mbokk julit borom boobu subhanahu wa taala xamal ne doowoo kenn mu wuyule ku dul yàlla wallahi lazi la ilaha illa huwa yow mi taxaw fii naan ya muhammad rasulullah muhammad déggu la ya ibrahim déggu la ya omar usman déggu la kenn danga ngay woo mu dégg ko muy sa borom subhanahu wa taala boobee nga xam ne nee na boo waxee ca kaw dégg naa boo waxee ci suuf dégg naa boo nebbee sa biir dënn dégg naa ca mboolem tur yi rafet yi man la ñeel mbokk borom boobu mooy ki nga xam ne boo ko ñaanul mu mere la boo ko diisul sa soxla mu mere la mooy kam gën a bëgg ci ay jaamam ka gën a bëri lu mu koy ñaan gën a bëri lu muy toroxlu ci kawam ci ci ci kanamam abi hurayra radiallahu anhu nee na sunu yonente alayhi salaam day yàlla bëgg gim bëgg bu koy ñaan amul benn guddi lu dul buñ demee ba mu des ceeru guddi ga sunu borom dana wàcce nam ko soobe ak nam méngoo ak i melokaanam donte na ñun xamuñu ni muy demee dana wàcc ci asamaanu benneel bi di wax ay yéen doomu aadama yi kan moo may woo ma wuyu ko kan moo may ñaan na may ko kuy jéggul ay bakkaaram ma jéggal ko mbokk xoolal ngeneelu yàlla bu yaatu bi xoolal buntu texe bu yaatu wi ndax julit dana ko dégg ba pare am soxla di ko ñaan keneen ku dul yàlla wala di sakku aajoom ci keneen ku dul yàlla ndax sa moromu jaam boobu nga xam ne dafa soxlaa ñaan yàlla mënul sañul ndax da nga bàyyi sa borom wëlbati ko moom di ko ñaan mbokk loolee mbokk da ngay gis ki am xel du bàyyi du def loolu abadan nan déglu sunu yaay Aïcha radiallahu anha mu ne man day dama ne yonente bi alayhi salatu wasalaam waaw leylatul qadr su doon yàlla damaa dogal ma xam ne lii day muy guddig leylatul qadr lan nga may sant lan nga may sant ma wax ko loo may sant ma ñaan ko mu ne ko da nga naan yàlla yow de yaay jéggale te da ngaa bëgg di jéggal say jaam da ngaa bëgg ak jéggale yàlla nag ma jéggal mbokk yàlla dong mooy jéggalay bakkaar te daa bëgg jéggal ay moom daa bëgg jéggal ay jaamam daa bëgg yi jaam yi di jéggalante seen biir yuhibbul afwa ay yàlla yàlla nag ma baal loolee kon mbokk di ñaan gu màgg boo xam ne ni julit bi heure bu koy ñaan borom bi subhanahu wa taala mi ngi ñaan lu rëy rëy ca mooy yàlla baal la mbokk yàlla bu la baalee farata ya nga sàggane woon baal na la ko tarxis yi nga defoon ca bakkaar ya baal na la ko mi ngi noonu jàll wa ala loolu moo tax ba nga lawaay xam leen ne ñaan day mooy lu jaamu yàlla gu màgg la yonent bi alei salaam nee na mooy jaamu yàlla kii ñaan yàlla gëm ne na yàlla ku am la kii ñaan yàlla gëm ne na yàlla ku ko jege la kii ñaan yàlla gëm ne na yàlla borom kattan la kii ñaan yàlla gëm ne na yàlla ko woom la la kii ñaan yàlla gëm ne na yàlla nga koy dégg ni muy toroxloo yëkkati loxoom gëm ne na yàlla nga koy gis te it gëm ne na yàlla na peek na soxlaam te mën na ko koo fajal te it am na mbaax gum ko ko fajale loolu moo tax mbokk la gënoon a siiw ci lu yonent yi daan taxawe sunu borom yàlla netti li ñu ko ca ñoom mooy nee na ñoom dañ daan jëkkante ci lu baax waaye fu ñu toll dañuy ñaan seen boroom ànd ak xemmem ànd ak toroxlu yàlla wax nañu ba ko nuux dee ñaan fa daa rabba yàlla wax nañu ba ko ibrahima dee ñaan wax nañu ba ko muusa dee ñaan wax nañu ba ko isa dee ñaan ay kon ngalla waay julit na nga jël melokaane loolu sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ci aaya boo xam ne mi ngi ko dugal ci aaya bi mu ñuy sant ñu woor na samay jaam day buñ ma nee laaj ne bulu man day ku jege la borom xam-xam yi ñu ne yàlla day waxul sax nee leen ku jege la ndax kon day mel ne yonent bi daa dugg digganteem ak i jaamam samay jaam yi buñ mënee laaj fa inni qarib amma yeneen laaji alquran yépp yàlla danaan nee leen amma man fa inni xarib yonent bi bokk fa dañ lay laaj ci carte ak maysar qul fihima nangam dañ lay laaj anil mahid qul fihima nangam dañ lay laaj anil shahril arab qul fihima nangam waaye yasalunaka anni su boobaa yow dégagel fa inni qarib mbokk kenn doxul sa diggante ak sa borom booy ñaan yàlla kay soo bëggee ñaan nga gaaw a nangu mooy ñaanalal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ba pare doo nga ñaanal sa bopp luy lañ lay sant am naa nga jóg nag di ñaan yonent bi yaa ngi def shirk ci shirk yu mag comme ni ngeen ko waxawoon ci xutba yi passé ay yéen mbokk julit sunu borom yàlla day mi ngi nii tàllalal ñu ay loxoom te la nga xamee ne mooy ay magasin du jeex yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne amul benn julit ci kaw suuf boo xam ne yaa ngi ñaan yàlla te la ngay ñaan bàkkaar nekku ca dagg ak mbokk nekku ca lu dul yàlla dana la may la nga koy ñaan wala mu fegal la lor bu naroon a dal sa kaw ni ngi noonu wala boog mu dencal la ko ca fa nga xam ne fa lay gën a ci yow lenn ci sahaaba yi ne ko ah kon de ñun yeneen ci yàlla daan gën a yokk suñu ñaan mun a yokku leen lu ngeen bari ay ñaan yàlla moo leen ëpp ay xéewal loolu kon mbokk julit bu sàggat mu ko ci ñaan gannaaw ba rafetalal sa njort ci sa boroom sunu borom mu ne ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu isa daani maa ngi sama njort borom xamal ne lii la tëj ci àdduna ak lu mu mën a doon lii nga jaaxle ci àdduna ak li mu mën a doon c'est normal parce que yow da ngaa limité amaa sa borom yàlla mooy ki nga xam ne innahu ala kulli shay'in qadir yàlla moo am kattan ci lépp te yàlla moo am tabe ci lépp kon nga la waay lépp loo jàpp da lay jëriñ sa wàllu àdduna ak sa wàllu alaxira barilal di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala te it nga la waay nga xam ne boo bëggee heure boo nekkee ci coono ñaan yàlla mu wuyu la jamono bi nga amul benn problème del toroxlu ci kanamu yàlla del ñaan yàlla ba baa ay rangoñ génn sa sa bët wallahi da ngay gis ne loolu day tax ñu keral la keru arash te loolu mbokk mi ngi noonu suñu borom yàlla des ko war a ñaan ci bëgg ko ñaan ko ci rus ko ci bàkkaar yi ñu def ñaan ko ci xemmem ko ñaan ko ci màggal ko lii mooy la nga xamee ni nii doomu aadama boo xam ne mi ngi koy def yëkkate ay loxoom jëme ci boromam yàlla du ko neenal abadan salman al farisi radiallahu anhu mu ne yonente bi alayhi salaam nee na seen borom yàlla day xayiyun karim dafa bëri kersa te dafa tedd ci lu méngoog moom nee na rus na moos ab jaamam yëkkati ay loxoom jëme ci moom ba pare mu daal di koy neenal moom la borom bi di wax naan ay yéen samay jaam rabbukum uduuni astajib lakum woo leen ma rek ma ñaan leen ku rëy rëy lu ci jaamu ma nag danaa ko tàbbal sawara mbokk yàlla mi ngi noonu bëggul ku koy bañ a ñaan su ko defee borom yow julit del ñaan ca ngay tànn la gën a matale ci ay ñaan bokk na la ci gën a matale lu góor ak jigéen yëpp war a jàng xam ko mooy ñaan googu di wax naan rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar te mooy yàlla yàlla nag ñu may la gën ci ñun ci àdduna ak la gën ci ñun ci àllaaxira te musal ñu ca la nga xam ne mooy safa mooy sawara ñaan la goo xam ne nii ah amul lenn lu muy bàyyi dee leen ñaan di ñaanal seeni way jur bu dee dañuy dund ñaanal leen bu dee dañoo faatu nag ca la ñu gën a soxlaa ñaan gi dee leen ñaanal seen njaboot te ñaan nga gën mooy yàlla def leen ay jilit yu baax yàlla barkeel leen barkeel seeni wërsëg waaye bu leen yem foofu dee leen ñaanal mboole mi julit ca xam ne heure boo ñaanalee sa mbokk julit boo xam ne yigu ko am na malaaka bu yàlla yunni mu tiim la ne amin yal na yàlla nangu sa ñaan gi ca may la lu gën li nga ko ñaanal su ko defee kon mbokk ñu góorgóorlu ci loolu bu baax fukki guddi yaa ngi nii di ñëw di tabbi samedi ci guddi ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo ko dogal ca tànn ko bépp yiw bu mu ciy wàcce yal na yàlla boole ñu ca bépp tiis bu mu ciy teggal julit ñi yal na yàlla boole ci suñuy tiis bépp bakkaar bu mu ciy jéggale yal na yàlla boole ci suñuy bakkaar yal na yàlla def ko muy buntu texe àdduna buntu texe àllaaxira yal na ci yàlla teggee mboolem fitna yi julit ñi dund tey ci kaw suuf yal na yàlla delloo ci la nga xam ne mooy ay noon yi te yàlla wëlbati waa julit yi tegaat leen ñoom ñëpp ala siratul mustaqim yàlla defal ñu mujj gu rafet ak àjjana mu nekk suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxasirin اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا مريدا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها و... إلا قدرت إلا قضيتها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك, ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين